seen Equivox TV tey ñi ngi fii ci nga xamante ni moo di caaro yi fekk si fi Baye Mandione Junior Baye Mandione Junior ñu gis ko mu def ambiance gis ko mu ànd ak ay mbokkam génn Baye Mandione ginnaaw bañ la nuyoo ñu ngi lay siyaar waaw di wax alonge onze kalmati laay taamaati kulli haa mi sore maa xalaxa gannaaw ma sant yàlla julli si yonent bi sant suma ñaari waajur di leen ñaanal yàlla na leen yàlla xare aljana ak mboolem julli bu ñu ko fekk di gërëm waa Caaroy bu baax xam nga waxuma ko kenn damaa ñëw rek teg samay sabar teg samay bëri ñoom ñoom kon maa leen sant bu baax di leen gërëm te saa su ma amee combat nii lay demee am nañ yaakaar ci man yaakaar gi man yàlla bu mu tas ah. tey ñu gis waa caaro yëpp génn ànd ak seen doom ah, tey lan moo waral mobilisation bu mel ni waaw xanaa kontaan rek ndax ñun tey bi ñuy dem di bëri ji couleur Thiaroye la ñu yóbbu ngemb loolu du ngemb la bu ñu amee ndam fi leen gën bu ñu amee leneen fi leen gën andi dañuy ma leen ñaanal Badou Fall ay ñoom Baye Mandione xam nga suma mag di ko ñaanal mu am ndam yu kawee kawe njortam ndax mag yu man mag la moom may taxaw mu may guddeel di ma bëccëgal man maa ngi amoo papa sama papa dafa génn àdduna mais moo ma yor moo jabaram Rose bu ma taxaw naa ko wax nag di gërëm suma mag yëpp suma doomu bàyyi caare maa fi gën a gën ay doomu bàyyi barke alxuraanu karim maa leen sant bu di leen gërëm di nuyu waa caare bu baax a baax di ñaanal isaab bi tamit combat bi jëp yàlla na ko yàlla may ndam ak joos di gërëm caare ñëpp waaw kontaan Euh, tey ñu gis nga war a bëreek xale bi nga xamante ni moo di Fourrière mu war a jóge fi nga xamante ni moo di Grand Yoff mu doon bëri boo xamante ni macha allah kenn naa tabliwul bëri bu nekk ci moom ak xeex bi nga xamante ni moo nekk ci moom est-ce que physiquement mentalement Baye Mandione pare na waaw loolu ay reetaan la ma def sax bu Fourrière adversaire la bu ma jox cër comme adversaire moom passé fii rek yi passé làmb moo ñu boole man ak moom dafa mën a bëri mën ta bëri moom damay ñaan yàlla bu jour J le 19 yàggatul yàlla may ma dam ci kawam mais gisuma wa xamante ne peut-être jaaxal na ma ci. yaa hmm, bu pare nga bu dee xeex pare nga. waaye xeex ma gën a loo mënte am ci combat bi. Ah. barki Seydina Mohamed bu xeexee doo dul xeexati barki Alxuraanul Karim te la ma tiim lu leer laa leen wax bu bëree ma dam lan ngay wax amateurs yi ak ñi nga xamante ni ñoo seen supporter pour bisu le 19. waaw maa ngi oo waa ñëpp. may woo waa Thiaroye ñëpp ñu teewee comme nañ ko daan defee est-ce que comprendre Thiaroye man fi laa dëkk est-ce que comprendre man Thiaroye laa dëkk tey fu mu mënti dem Thiaroye laay ndamoo man boo waxee sax dama naan du ma Sénégalais waa Thiaroye laa du ma Sénégalais man waa Thiaroye laa waaw ay believe myself doole baa dee barki Seydina Mouhamed eh Thiaroye maa leen woo bu ku si mel ni Pambay Kaolack daf may jàppale rek te yàlla tax ak baj baj waaw ñoom Matar Diop gars yi yëpp xam nga ay ñoom am meloo ñoom Sora Sora damaa tuddee doom waa Thiaroye Sora damaa tuddee doom ah waaw loolu loo xamante ni waaw na trop yee ak waa atelier bi nga xam ne moom mooy courant nga waa càmbar ngeen ñëpp waaw maa leen nuyu ñoom ñëpp mais mbër waaw ah. ndax xam nga important combat bi ndax yaa ngi bëri booy boo xam ne booy bu ës la booy bu 15 la muy fourrière fu mu jàpp day bëri ndax xam nga important combat bi si yow waaye fourrière mais barke yàlla bu ñu jàppante daanaanam da ngay réer réer maa ko ëpp doole maa gën a ne xale maa ko ëpp doole fukki junni yoon te li may bëri du ma ko bëri may kontaan xanaa gisoo leen Fourrière amul lii c'est comprendre Fourrière amul lii te ñii damay damay daanante ñoom te tey ku si tëggoon Fourrière daan Fourrière kon amul lu may tiit ci combat di gërëm ñëpp ku si mel ni xam nga ay am dem ay ñoom réer yàlla na yàlla may na uh-huh. sama entraîneur ma dénk c'est comprendre ak ku si mel ni Iba Cissé moom may ma guddi ak saa bu ñu jógee entraînement gërëm nañu dem mu ñuy jox cere jën ba tey maa invité kii nu mu tuddee sa xol bu rafet dina ñëw si cere jën bi xam cere yi jaay la ko yàlla def maire waaw ak Xaadim Ndiaye waaw. léegi moom nga xam da xam daan xam nga fa la a yóbbu ci biir làmb. waaw daan fourrière làmb moom même boo daanee yaaw jaal sax am na fu mu la yóbbu. en tout cas l'essentiel mooy na daan rek te man gëm naa ne Fourrière dama koy daan xooli leneen waaw xam nga drapeau bi ngay bëri muy drapeau reporter yi bañ a xam moo tax may rey sama bu dee bëccëg ndax yéen ay waxkan ngeen ah ku daanu du baax si ngeen xam naa loolu tey su ma daanoo eh. leneen ngeen wax eh. moo tax damay rey sama bopp pour daan combat bi nii eh. na drapeau yi waxkan moom ku ko du baax si moo damaa bëgg a daan ay ah, waxkat yi ngeen wax waa équipe bi ñoo waaw Equivox maa leen nuyu di nuyu seen DG bi sa nu mu tudd Mamadou Seck nuyu bu baax numéro bu ne laa koy ooyoo da daf may jël ay numéro Tigo ma jot ooyoo da daf may jël billah espresso ñoom ñoom xam nga mais damay jël maa ngi sant bu baax di gërëm di ko wax ne combat bi li nga ci année réel métti na si ñun saa comprendre dama xaw a jàppale tuuti hélas yu bënta naa loolu da dafa may fan si jógee Gambie mercredi moo leen xanaa si soo bëre naa fa mën a kàngam Sambay tëggoon na ko. dama koo duy ñëw bëre tuus mu neex daan gaay ñibbi. Eh. looy wax waa Caaroy. waaw du nuyu tamit Abib Faye Caaroy moom nu ma leen woowaat rek man Caaroy tey su ma ñëwoon rek combat bi noonu suba la rek ma ne leen combat bi suba la ñuy dem. waaw kontaan naa si waa Caaroy bu baax di sant Ousseynou Faye ak Lom di leen sant bu baax jàppale nañ ma waaw yaa ma gën a ngir yàlla bu leen si tàgg dara gaay waaw. lan di wax waa waaw di wax autorité yi nga xam ne ñoo am doole caare yi ñu jàppale ñu si ay billets na ñun tey bu ñu amee combat noonu la ñuy def booy ñooy ket ket dafa war a jëf caare ndax boo demee parce que Pikine kenn ketandu ñi leen xam ne ñoo leen jàppale ñoo leen jëndal ay billets man musuma bëre ñu jëndal ma billet sama gars yi si marché yi jëndal ma billet bu doon may kar regroupement loolu tamit dafay metti quoi ku si man ni ñoom Ablaye Diop gars yi ñoo may jàppale waaw na jàppale yi gën a ñëw daal nañu jëndal ay bolo gi billet rek man loolu laa leen am naa sa benn yóbbu na ci fourrière. waaw ñooñu ne jour ba lépp lu fay neex moo koy def xeex bëre ambiance public bi. fourrière bàyyi ko mu ma dàq moo ma dàq moo ma dàq bëre la ma dàq ma nangul boobu. Eh, nee na wax ji nga kuy wax day jëf waaye ndis bi mu waxoon si combat moom bébé jën danañ kaan ndis ñaan may ndis fii doole baa dee la pour ragal waaye di gërëm suma waa koñ di ñaanal boo xam ne Ibra Diouf samay combat di ci daan sonn bu baax a baax a baax tey caabi da ko féete ginnaaw ñoo ngi koy ñaanal gaaw génn ñu taxaw ko ba mu génn ndax tey samay combat amaana sa saraxe moo ko daan génne kon tey bu ko caabi féete ginnaaw dañ koy ñaanal ngeen mu moo magam Ibou Laye dañ daan sonne di nuyu ku si ak tànkuma Njaay ñoom foofu laa dëkk ci kër googu noonu man dama suñu kër man gàlle foofu laa dëkk ndax ñoom ñoo ma yor eh, ah, mënumaa wax ñoom nag mënumaa wax ñëpp ku ma limul rek nga xam damaa juum maa ngi gërëm ñëpp képp ku ma jàppale maa ngi gërëm di ñu gërëm sama doomu bàjjen bàjjo c'est